sérieux ah, ah non wax daggu la bàyyi ko mu yeggali Sénégal la. laissez-le terminer s'il j'ai dit. non il faut être sérieux monsieur. allez-y euh, maître. Ah, li ma wax neexul. non. attends il faut supporter. waaye li ma wax neexul mais il faut supporter c'est comme ça. donc je disais que. dans un pays normal dans une démocratie normale. il doit y avoir de confrontation de programme on ne doit pas se liguer pour tirer sur. simplement le pouvoir parce que aussi Sénégalais il faut leur donner la possibilité ñoom aussi ñu tànn parmi vous si peut-être raw na ñun ñu mais ñun ñun rek maintenant immigration clandestine bi la métti. man je pas là pour dire que pour minimiser ko même le président ne l'a pas minimisé dernier conseil des ministres il en a parlé. Il a eu beaucoup de choses qui ont été faites. on s'attendait à des mesures concrètes. Mais justement, les mesures concrètes, combien de xam nga l'État ne peut pas employer tout le monde wax ngeen ko y a aucun pays du monde boo demee dans le pays développé d'ailleurs ñoom dañuy wàññi sax seen fonctionnaire l'État ne peut pas employer l'État peut mettre des conditions fii euh, on a on ñaata agence d'emploi des jeunes ou de financement lañ créé ñaata DER mu ngi fii. mais loolu moo garaaw nag mu ngi mais mais c'est ça l'incohérence monsieur Thiam. mais c'est ça l'incohérence ma ne xam nga loolu. c'est la responsabilité peut-être elle peut être chargée au niveau de l'État mais elle peut peut également être reçue au niveau des jeunes parce que aussi il faut que ñii ñuy jàng entreprendre mais sénégalais boo wax mu ne la recrutement dans la fonction recrutement la fonction publique. il faut nga ñu jàngale nu ñu entreprendre exactement. il faut euh, kooku responsabilité état bi la. wax na fii 3FPT. voilà ah, quelle la différence. non dis-nous la différence entre CNQP et 3 personne. quand même. CNQP c'est un centre de formation c'est le premier centre au Sénégal oh. et autant c'était pas CNQP li ñu dese ci temps bëriwul. donc s'il vous plaît non non mais dañuy leeral Sénégalais yi dama xamul CNQP il était en de parler. bàyyi ko bàyyi ko mu le parler. dis-nous la différence. Modou non bàyyi ko même su ko deful bàyyi ko mu les c'est eux les tenants du pouvoir. c'est pas important. donc je disais que euh, euh, les jeunes. l'État le gouvernement sénégalais a beaucoup fait. il y a eu des programmes. il y hmm. des agences qui ont été créées ANPEJ DER des financements ont été octroyés. c' est pas suffisant mais mais Thiam mais Thiam loolu moo baaxul Thiam. baaxul loolu moo baaxul l' état doit l' état doit oh. employer tout le monde ce que l' doit faire pour ces jeunes d' abord de les former ça c' est un de les aider pour qu'ils entreprennent la deuxième chose c' est industrialiser ce pays. aujourd'hui yaa ngi wax waxu Diamniadio demal Diass avec les zones économiques sociales je rappelle Abdoulaye Baldé qui est le directeur l'APIX fait un excellent travail aujourd'hui pour attirer les investissements keroog on a lancé les travaux des zones économiques spéciales qui se trouvent à jas yoo xam ne c'est des zones qui ont été créées pour capter des investisseurs beaucoup d'entreprises à la, à nga xamul foofu non à la fin du régime boobu commencé wul tey commencé wul tey y' a. Sénégal Sénégal moom c'est un pays qui c'est un pays qui n'est pas industrialisé. franchement a beaucoup je ne veux pas faire de la publicité il beaucoup d'entreprises qui sont là-bas. demoo fa malheureusement. demoo fa ay dañuy toog ci télé yi foog ne Dakar euh, lépp fii la yam par rapport aux infrastructures. est-ce que aujourd'hui un Sénégalais sérieux mun na taxaw toog fi ne Macky Sall deful dara en termes d'infrastructure routière en termes d'hôpitaux en termes d'école yéen ngi doon wax waxu Kédougou mais allez à Kédougou demandez au au de Vert entre Salémata et Kédougou ñaata heure lañ doon def pour pour pour rallier ces deux villages allez ay villages yoo xam ne c'est que foofu ah, on a raisonné en termes coupé wu ma ma coupé bu ma coupé nga nekk fii di xatarak mën naa ko def encore une fois. non defal ah, man je te le permets. man je te le permets moi je te le permets. non non c'est pas la démocratie. ah si je te le permets toi aussi on est dans un débat parce que li ñu mais on est dans un débat. non c'est pays bi lañ dëkk. Ah. demal Kédougou nga dem Tamba nga dem partout laaj den les gens comment ils vivaient. nga laaj den comment ils vivaient. comment oui. dans la ah, pauvreté et jusqu'à aujourd'hui ils sont dans la pauvreté. y a des villages ah mais d'accord mais mais loolu. amul hôpitaux man chaque fois quand je parle j'entends les gens. alors bu dee fii ngay nekk nekk ci télé bi yor sa journal di wax doo suñ côté doo ko xam. et le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. très bien d'ici allez à l'intérieur pays vous verrez que l'État a beaucoup fait. waaye du man mi waaye du man mi koy wax loolu waaye tam caabi tam toogal waaye toog waaye toogal waaye caabi man man man Serigne Saliou wax loolu waaye waaye. au même moment ñu ngi jàpp yéen seen i ay seen i ay cortège. le taux d'inflation c'est à neuf. loolu c'est

depuis moom ak son poulain Amadou Ba ñu ngi entamé ay tournée tuddee tournée économique Sénégal yëpp teg bët très bien ñu tuddee seen tournée tournée parce que pendant douze ans l'économie a été le cadet des soucis du président Macky Sall. Ah pour preuve. bi mu yéegee li mu njëkk a wax mooy je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression et non je vais réduire la pauvreté et la précarité à leur plus simple expression maître je vous ai bien écouté eh maître je bàyyi ma rek ma continuer suma suma suma raisonnement je veux dire aux Sénégalais que le président Macky Sall bi ñu yëkkatee Sénégal teg ko ci loxoom li mu gën a lijjanti mooy nu mu asseoir son pouvoir gën fi toog mais ñàkk ndool précarité bi sénégalais yi nekkee c'était le cadet de ses soucis et c'est très normal que mu jog tey tournée yi muy yi muy tournée ko tournée économique même si ces tournées non rien d'économique c'est des tournées éminemment politiques ñu fekk ci ko ci tournée économique yooyu mu tuddee économique le président Bougane de 98 à 2023 a parcouru. de 2018 euh, 2018 excusez-moi excusez-moi, de 2018 à 2023 a parcouru de plus de 200 000 kilomètres pour sillonner le Sénégal. ban ban conclusion la ñu la ñu la ñu am bi ñu demee gis Sénégal fi mu wax Kédougou Tamba amul ville village bu ñu tegul suñu tànk ñun gëm sa bopp li ñu diagnostiqué mooy un comment économique soxna Néné am na euh, gox yoo xam ni Sénégal amul activité économique boutique sax pour nga gis ko dans certaines zone da ngay parcourir des kilomètres et des kilomètres donc loolu muy échec bu cuisant du président Macky Sall et de son régime des fois sax damay tooñ sama mbokk yi nekk ci benn mbokk Yaakaar di wax ne président Macky Sall li mu waroon présenté Sénégalais yi du un candidat mais c'est des excuses Olof Ndiaye dane ku yokkul da nga wàññi pendant douze ans ñu jox la réew mi ak alalam ak lépp nga yàkkal leen lii nga leen yàkkal tardeel nga leen Sénégal fii mu toll tey waroon na fi weesu li ko waral nag mooy li ma wax président Macky Sall politique la topp jël économique teg fële. pourquoi politique xoolal dans l' administration tout les politisé tout à l'heure maître parlait de agence de formation et de financement de l'emploi des jeunes mais on a mis la charrue avant les bœufs maître. pourquoi parce que. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo fi nekk di. ay créateurs d'emploi Serigne Mboup Bougane Gueye dani Bara ab Abdoulaye Dia Sénico les grands hommes d'affaires ñi nga xam ni le secteur privé ñoo ko ŋànk boole wuñu leen ci les programme d'emploi des jeunes